Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. Serigne Modou Kara pare te moom lu bari mu koy taxaw ci màggal gi tey ñu dikk fekk la fi te ñu bëri gis seen diggante muy kóllëre bu am solo bu rafet ñu bëgg a xam lan sa teewaay si bi aouzu billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa inni yow anchoa bika wa suriyata xam naa comme dañ ñoo bett rek dañ koy tënk waaye ko xam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul xam am Ceerno Birahim borom ndaamal daaru daanaka matut leeral jarut leeral ni mel noon ci sëñ ak toppoon ci ginnaawam nangul moo tax li mu am mu am ko waajuru maam Thierno mi nag mu Cheikh Mamadou Kara Noreyni am fa ma teg lool fonk ma lool bëgg ma ñu am ay jikko yu rafet yu am solo yuñ doon jël ci moom yàlla def ba ma xamante maam Thierno mi loolu nag kóllëre googu la ñu doxal te ñun ñi bokk génération ñoo ko war a doxal ndax suñuy maam ñoo fi nekkoon doon doxal lu mel noonu kon nag mujjee puso bi muy réer la bañ ba tax na bi ma xewlee màggalu sëñ Abdul Xadar dafa dagg yitteem yëpp ñëw ci man ma kon nag bu bis bu mel nii boo amee damay dagg sama yitte ñëw wan ko ne ko ñooy ànd ak yow bis bi te di ko bokk ak yow ba mu jeex moom mu doon nit ku am solo nag nit ku jafe ci nit ñi woyof na am nag taalibe bëgg na sëñ Tuuba te loolu la ñuy fonki nit kon ne ko ñaanal naal yi mu egg naal yi mu naal yàlla na ko sunu borom yeggale ndax waajur moom dafa foor te am na lu ma wax démb loolu lu am solo ci man mu ne waajuram da koo sas ab liggéey ku ñu amut yaakaar ci yow duñ la ko def loo kon nag na gën a góorgóorlu xam ne moom njabootu sëñ Modou Kara yépp la ko defal njabootu moom ñi mbokkal baay ñëpp la ko defal waaye nag ah, ab bunt la ab tàmbali la rek kon nag na na na na na ci jàjju te xam ne ah, la ca kanam moo ëpp na jàppe boppam Baay Faal waajuram damaa waxoon ci benn vidéo ne ma waajuram damaa waxoon ci benn wuddoo ne ma bu ci def ni Seex Ibra defoon da seex ñaari yoon sët bu ko ci defut nag benn yoon ngay seex ngir li nga doon waaye ku mel ne Seex Ibra def jënd jëndee jërëg njureel jaay ko jëndee koog taalibe da nga seex ñaari yoon te mel ne na ma nga ci yoon woo kon nag ñu ngi ñu ngi koy sant bu baax di ci ñaanal yàlla defal ko jàmm.